الرحمن الرحيم kon fii xissa bi tàmbale xissa bi ni ko alquran tuddee ngi dalee nett li xissa Moussa ak xubar ci mujj suratul kahfi wax ca ni wa iz qaala Moussa li fataahu la abrahu hatta abluga majmaa al bahrayni aw amdiya xuqba borom xam-xam yi dañoo wuute ci sababu xissab Muusa ak Xudar lan moo ko sabab am na ci ñoom ñu wax ni Muusa ibnu Mansha mañ daan wax mooy Muusa mu jëkk moom moo ko tax a jóg dafa am ku ko laaj ibnu xabaar mu ne ko day loolu wér li wér mooy Muusa ibnu Imraan ñi nekkoon yonente bani Israil dafa mas laaj boromam ni ko la يا رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه mu ne ko damaa bëgg sa jaam yi bu fekkee ni am na ci ku ma ëpp xam-xam nga tegtal ma ko nee na yàlla tabaraka wa taala ni ko waaw sama jaam yi day am na ci ku la ëpp xam-xam daal koy tegtal béréb ba ci xudar nekk ni ko na nga fa dajeeg moom waxtaan ak moom am na beneen riwaaya bu jëlege ci ibnu abbas mu wax ni Muusa dafa laaj boroomam ñu ko yow sama borom ana kan moo la gënal ci sa jaam yi nee yàlla ni ko ki may fàttaliku te du ma fàttaliku mu ko kooku moom gënal ci sama jaam mu ne ko sa jaam yi ana kan moo ci dàq mu ni ko kuy àtte ci dëgg moo ne ko sa jaam yi ana kan moo ci ëpp xam-xam mu ne ko mooy ki nga xam ne bu dajeek mbooloo day sàkku ci même xam-xam bu mu dolli ci la mu yor ndax mën naa am mu déggee ci baat bu ko yóbbu ci ak njub mbaa mu déggee ca baat bu tax mu bàyyi ndëngate gam nekkoon Moussa ne ko ndax fii ci kaw suuf am na ku fi nekk ku ma ëpp xam-xam neen yàlla ni ko waaw am na fi ku la ëpp xam-xam mu ne ko sama borom kooku ma ëpp xam-xam mooy kan mu ne ko kooku mooy xudar mu ne ko ana ku ma koy seeta ji mu ni ko mi ngi ci tefas bi ci wenn doj mu ne ko doj woowu ana nan laay xamee ne su ma ci àggee fii fi laay xamee ne ci la doj wa mu ne ko jën woowu yi ngeen yor di ci dund saa bu demee ba delluwaat di dund rek foofee mooy bërëb ba xudar nekk jamono booba Moussa mi ngi yor wenn jën boo xam dañ ko waaj bi def ci xorom di def amuñ xiifee mën cee dund loolu yi moo tax nag mu daal di wax li ko yàlla waxee waxante moom nii mu wax am loolu yi mu daan àndal te mooy Yuusuf ibnu Nuun ab nabi yi la woon am mu wax ko ni ko laa abrahu wa isxaala Muusaa li fataahu fataahu léegi mooy Yuusuf ibnu Muusaa laa abrahu hatta abluga majma al bahrayni aw amdiya hukman ko kat du ma toogati te du damaa dem ba fa ñaari géej yi daje wala bokk danaa dox jamono yu loolu yi moo mooy tàmbali xisa bi ñu daal di ànd ñaar bi ñu àndee di dox ba àgg ci ab birëb saañ ko nañ toog ci noppalu bañ toogee ba noppalu ba jóg bañ jóg bañ datan bañ datan jóg nda ca am na benn bët bu fa nekk ñu di ko wax aynul xayaat yi aynul xayaat ndox moomee lu mu laal rek da ngay daal di delluwaat di dund donte lu delloo bañ fa àggee ba jóg jën wi ndoxum géej mi ñëw ba agsi ci ba mu ko laalee jën dem yoon ñu dem ba sonnaat wutaaniku indi sunu añ ñu añ ndax sonn nañ ci ndoll mu ne ah, mbir de am na ci ndax foofee ñu toogoon ci wetu doj wa di balaa fàtte fàtte naa la ko wax waaye jën wa di dafa dugg ci biir bi daal di dem yoon nee na ko zalika ma kunna koy foofee mooy sax duñ sàkku fa tadda ala aathaarihima xasasa nee na ñu daal di wëlbatikuwaat nag dellu fa ñu bàyyi ko woon bañ demee ba àgg fa fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilma ñu fekk fa ab jaam bu bokk ci suñu jaam koo xam ni may nañu ko yërmande may ko xam-xam bu jóge ci ñoom mooy ilmu ladunni mu wax ni ba ñu àggee Moussa dafa wax xudan ni ko asalaamu aleyk Badar gestu ko ni ko wa aleykum salaam yaa Muusaa bna Imraan ba ko waxee loolu mu ni ko ana ku ma la xamal mu ni ko ki la teg lii la xamal bu daal ne ko nag damaa ñëw ngir sàkku si ci yow xam-xam bëgg laa topp ngir li la yàlla xamal nga xamal moo ko mooy hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax mën naa laa topp ngir li nga xam nga xamal moom ko dañ ni ko déedéet ndax danoo bokkul suñ jëm danoo bokkul ay xam-xam moo tax ndax xam-xamu zahir nga yor saman bi yor xam-xamu baatin te nit ki mënta muñ lu mu xamut dañu ko lan tastatia may sabran doo mën a muñ ànd ak mën wa kayfa tasbiru ala ma lam tastati xubran nit nan lay muñ lu mu mu ni ko sa tajid nii insha allahu sabiran wala ansi laka amra bu soobee yàlla day danaa muñ te fas naa yéene danaa ko def te la mooy ba mukk mu ni ko kon bismillah ñu daal di ànd jóg di dox ci tefasu géej ba ñuy dox ci tefasu géej gi war dem am gaal gu leen romb ñu arrêté ni ko danoo bëgg nga yóbbaale nu yóbbaale leen te booba yoruñu dara waaye xudar la mu jëkk a def bañ duggee ci gaal ga mooy dafa daal di dem ci wàññi dénk ci dénk ci gaal gi rek di kër kër di kër kër ba ne ko daal jot ndox ma tàmbalee dugg ci biir ba ndox ma tàmbalee dugg mu daal di wut ay sagar ak yu mu yoroon rek fexe ba att bën bën boobee ndox ma doon jaar ci gën loolu nag doon ak jaax la ci Muusaa lool mënu koo muñ mënu koo dékku it mu ne ko axaraktaha li tuxriqa ahlaha yow gaal gi nga xam dañ dañu ci yóbbaate amuñ luñ paas ñu yóbbaate ngir yàlla képp nga ñëw di ko yàq dañuy ngir bëgg waa waa ne ko ah alam aqul innaka lan tastatia maay sabra ndax ma la woon doo mën a muñ ànd ak man mu ne ko dama koo fàtte bul ma jàppee nag sama fàtte googu ñu daal di continuer waat di dox ñu continué waate di dox ci di maanaam ñu continué ba gaal gi wàcce na ñu wàccee ñuy dox ci tefasu géej gi ba ñuy dox ci tefasu géej gi ñu gis ay xale yuy fox xale yooyu Moussa dem jàpp ca kenn dem ba ci aw daj mu yëkkati mu dóor ca bopp bopp xale ba toj xale ba dee moom moom moom xudar moo def loolu Moussa daal ci amaatu jaaxle lool ni ko bakkan nag nga rey ko te xale ji moom war na mën defu dara moom ni reyut nit da nga ko rey ndax gone la reyut nit ci lu reyut bakkan ci loolu bakkan nag wax dëgg ko moo fu tegu ni ko nag def nga lu garaaw nag def nga lu sib nag loolu la ko mu ne ko alam aqul laka innaka lan tastatia mani sabra wa ñëwaat naa la day mu gi moom mënoo mu ni ko nag léegi kon su ma la laajatee te nii bu boobaa mooy sunu tàggo mooy inna in saaltuka an shay'in ba'daha fala tusahibni bu ma laajatee dara am nga droit ci bañ a si li la si on am nga ngaan mën ku ñuy wax ibnu ishaq wax na ni jëlee nañ ci ibnu abbas mu wax ni ubay ibnu kaab ñeen yent doon na wax ni yonent bi daan wax ni yal nañu yàlla yërëm te yërëm suñ mbokk Muusa ndax bu gënoon a muñ yàlla dana nu dollil ci dana nu gën a nekk ci man ci seen diggante waaye lam mënta muñ mu tax mu yàq mu dag mu yàq xeesari ibna wax ne yonent bi daan wax doole léegi ni mu daal ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala sahibni kad bala sama wax doon saa bu ma laajate dara nag léegi bul ànd man wax am nga man jàpp ñu daal di continuer di dox ba dem ci ab dëkk bañ wàccee ca tefas ka dem ci ab dëkk wa dëkk ba nag ki ñuy wax ibnu abbas wax na ne mooy dëkk bi ñuy wax antakiya muhammad ibn sirin ne dëkk boobu mooy dëkk bi ñuy wax ay ayla ayla dañ ko daan wax waaw ayla wax na ne dëkk suuf sore sore la mooy dëkk bi gën a sori ci dëkk yi rom naasira lañ koy wooyee léegi ñu ni ci lañuy askane nasran loolu moom la Muhammad ibnu Sirin wax bañ fa àggee ñu ngi fi àgg ci jamonoy jant bu sox ñu sàkku ci ñoom aw ñam ndax bañ xëyee ba léegi ñu ngi dox xiif nañu lool sàkku it ñu ganale leen waaye ñoom bañ nañ fa abaw añ yo bañ foofu waaye dañoo doon waa dëkk boo xamante ne daal ñu soxar lañ ñoo xamante ne amuñ benn yërmande ba it amuñ benn teraanga ci gan ba tax na biñ ñëwee ak seenub xiif ak seenub coono sàkku ci ñoom ak ngan ñu lànk benn ak cib rek ko dimbali léegi ba tax na guddi googee amuñu reer bu ñu reeree amuñu am ndox amuñ fenn fuñ mën a fanaan yi sa guddi ga guddi gu sedd lawoon nga xam dañoo dem waaxu ba ci taatu ak miir rek ci ci wetu mbedd mi rek ñu fanaan fa bañ demee ca miir ba nag ba war a fanaan mu ngi fekk miir bi daayaarlu ba mel ni luy bëgg a daan nga xam ne ko fay romb rek ci tiitaan yi nga fay romb rek nga da ngay ko ne ngir jàpp ne miir bi fokk mu daan ci sa kaw ngir dem na ba tuute ko seetaan waaye fekk miir bi nit ku baax ko tabaxoon am na ci xibaar yi ñoo xam ne dañoo xam ne miir bi gudd na fanweeri xasab ci kaw ci xasab bu ñooñee sa jamono bu ne nit ñi dañuy dem di jàpp ñoo ñu gën a ñoo gën a njole te ñooñu dañuy njole njole ñu wëdd gudd na fanweeri xasab mu yaatoo juróomi téeméeri xasab moom miir léegi nag xudar fekk dafa jàngoon mbirum maçon lay musu mu dem fa sonn sa à dire suñu boppam sonn ci lool defaraat ni ba mu baax Ibn Abbas sax dafa wax ne xudar daa ñëw mabbu miir ba mu daanu mu daal di jóg ko tàmbaliwaat ko def defar ko ba mu tegu ci yoon walaw siita la taxat alayhi nga fekk ci muy bëgg a daan dëkk nga ñëw bu fekkoon ni laaj na ak pay sax ñu ñu jàpp lu ñu jàppandi ko ko na mu ko xaaral xaaral ko bañ ñu benn ne ko na ñëw naa lu waaye la la jaaxaloon ci li ñu koy tàmbalee nag ca gaal ga gaal gañ gaal gañ dugg tam dindi ci aw dénk yàq ko ba ndox ma di ca dugg mu defaraat ko mu ne ko amma safinatu fa kaanat li masaakina ya'maluuna fil bahr fa aradtu an a'iibahaa wa kaana waraa'ahum malikun ya'xudu kulla safinatin asba mu ne ko gaal gi dafa doon gaal goo xam ne lu mat fukki miskin ñoo ko bokk fukki yooyu juróom yi dañoo lompañ ba ña nga toog ci kër te ci gaal gi ci lañ mën a dunde di ci liggéey di leen ci dundal yàlla ci la jaar ne seen dund te mënuñu ñàkk a dund te am na buur bu nekkoon ci sunu kanam seetlu nga ni ba ma dajjee gaal gi rek am na ko nu dogale xool ba mu gisee yàqu-yàqu la daal di bàyyi dem waaw mun buur boobee bu fekkoon ni gis na gaal gi dafa sikku ci dana ko nangu te kon ñee nga xamante ni dañoo toog amuñ luñ dund rek ñu amul luñ sama moo waral ma def ko yàqu-yàqu ba buur ba mu mu ni ko ngóor si mu ni ko waa amal gulaam fa kaana abawaahu muminin fa xasiina an yurhiqahuma tugyaanan wa kufran naa fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma xayran xayran mu ne fu ngóor si defal koo xamante ni ñaari way juróom ñu baax lañ ay jullit lañ te bëgg nañ ko mu bëggeel koo xamante ne mbëggeel gu tar la te bu fi sa ngóor si ab kàccoor la bu fi yàggee ñoom mën na leen a yóbbu sax ci ak wet yàlla bu boobaa danañ tàbbi sawar te sama borom xësawul ci ñun doy fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma xayran minhu zakatan wa aqraba rahma yàlla bëgg na watteel leen ko sumu gën ci ñoom ne ko waa amal jidaaru ni dafa am ñaari gone fa kaana lahu ghulaaman yatiiman ñaari gone yoo xamante ne ay jirim lañ di nekk ci biir suufu miir bi dafa am ndenc lu leen ci seen bàyyi dencal te bu miir bi daanoo ndenc loolu yëpp duñ ci léegi ci loolee jële nañ ci ku ñu wax xasan ak jaafar ñu wax ni ndenc la alluwa la woon nga xamante ni alluwa wurus la dañ caa bind bismillahi rahmaani rahim xajaban liman yuminu bil xadar nañu denc loolee alluway wurus la joo xamante ni dañ caa bind bismillahi rahmaani yéemu naa yéemu naa ci ku gëm dogal bi ba noppi di jàq yéemu nañ ci ki nga xamante ni wóolu na ni yàlla moo yor wërsëg ba noppi muy sonn yéemu nañ ci ci wóolu ni mënta ñàkk dee ba noppi ci dëkk kiimaan am na ci ki nga xamante ni gëm na ni des na ko rek ne yow a yàq na ko isaab ba noppi muy dajale kiimaan am na ci ki xam adduna ak wëlbati ko nan la ci ana xel mu daq ndax yi dim na ci mujj laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah wax nañ ne alluwa ji loolee moom lañ ci si doon am nañu wax loolu Euh, wax nañu wax nañ ni bi nga xamante ni nag Moussa ak Xudar dem nañu ba war a tàggoo Xudar daf ko wax ni ko dénk ma dama bëgg nga dénk ma léegi maanaam Moussa dafa wax Xudar ni ko nag loo may dénk ma yóbbaale ko Xudar ko li ma lay dénk mooy bul jógati mukk di dox ci lu ko dénk naa la nga moytu coow lu bari mu ne ko waaw mu ko dénk naa la nga bañ a ree ci lu amul xoram bukki maa yow bul tere mun ko mun ko dénk naa la it bul ay bale ci mooy kat yàlla ci ci mooy ga ñu mooy yàlla waaw ko na ngay seet mooy yàlla say ñaar def nga di ko jooy mun ko mu ne ko bul yeexe ci jëfi tey ba ëllëg maanaam jëf li ñu war a naa ko bàyyi ba ëllëg na ko loolu daal di dégg boobu joxañ ko ku ñu wax abu umama albahiliyu nett ni na jële ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ni benn bi seen tool ndax du ma leen waxtaanal ci xudar ñu ne ko ah kay ya rasulallah mu leen xudar am na ay jamono muy dox ci benn marché ci marché yi benn israil dajeeg benn waaye kooka ni ko man de damaa toll ci ab jaam laa bu toll ci ci sama sang dafa wax ne ma ba ma joxee nangam daga moom ko bopp ma bëgg nga sarax ma lu ma boole ci sama dund yàlla na la yàlla barkeel Xodar ni ko ku gëm yàlla raad lépp lu mu àtte ci gëm naa ne dana nekk waaye li ma la mën a waata bi moom gëm naa dara waaye ko ñaan naa de yàlla ba dal ni ko gëm naa ne yàlla gëm naa yàlla yëpp gëm naa ne lu mu àttee dina nekk waaye wax dëgg ci jël sama loxo nga jàpp ci sama loxo bii duggal man marché bi jaay boo ma jaayee bi loo ci ànd rek yoon la am naa loo dal waaye leneen la jëm waa ji ne ko ndax da kaf mu ne ko lii ma la wax mooy dëgg ci man ndax da maa laaj da maa ñaan ci jëmm ju mag muy yàlla loolu moo tax ma wuyu la ci loolu sañu ma laa sañu ma laa ñàkk ñàkk dox li nga bëgg jëlal sama loxo jàppal sama loxo bi dugg ak man marché bi jaay waa jàpp ci loxol ko dar dugg ak moom ci marché ba jaay ko ci ñeenti téeméeri dërëm ko dar nekk fa kooke ku jëndoon am fa ay fan waaye defloowu ko dara jëfandikoowu ko ci dara Udar ni ko damaa bëgg nga seet loo may liggéey loo nga liggéey loo waaja ni ko da ngay moo tax bëgguma laa seet mu ni ko dara diisut ma loo man rek loo loo ma bëggee liggéey loo dara góor gi ni ko jógal kon nga toxalal ma daj yi ko fii yóbbu ko fee te daj yooyee lu ci ëpp ñaar bu ñu ko masaan ci bëgg a toxal juróom benn juróom benn nit juróom ci ab dëkk ma sëkk bi ñu fa yenn ma war xuldal jóg tuxal dëgg yooyu ci wenn wax waaye yàlla daf ko dimbalee yabalal ko am malaayika ko jàppale soxal ba tax nag benn waxtu la ko soxal te juróom benn nit a mën a ka nga xamante ni moo wax mooy moo moo moo ko jëndoon loolu lool daal ni ko ah, nga ko bu wax ko dara ne ko yow mii de gis naa ne ku wér nga gis naa ne ku baax nga gis naa ne ku amul laaj yi ma bëgg nga wutuma fii sama kër ko dara ne ko waaw waaye da nga ma fi jox am liggéey bu may liggéey kon boobu noonu ñëw sant ma fi ma war a liggéey ma bu waaje ne ko lu gis ci yow de laa lay bañ a teg mu ne ko la nga may teg ci gis ma tegal góor ga ni ko damaa bëgg kon nga defaral ma ay mool ndax dafa am lu ma bëgg tabax daa koy melalal façon tabax bu bëgg ba ba ko xam ko mu daal di jën dem tukki ba mu tukkee ba ay itam mat bu jël si waat ca ba gis na ni xudar alayhi salaam yëkkati na tabax ba ni mu ko bëggee tabax bi moom ay mool la ko waxoon mu ko tabax bi nangam laa bëgg mu mool mool yee ba tabaxe ko na ko waaja bëgg ba waa ji ñëwee dañ saa yéemu ko dañ ko ku def lii mu ne ko sa jaam bi yéemu ci lool mu ne ko nga xamante ni jëndoon nga ko moo la ko ñaan naa la ci jëmm yàlla nga wax ma yowee kan ko dal ne ko lii nga ma ñaan lii lii nga ma ñaan ci jëmm yàlla de moo ma tàmbaloon ci ñaan bi ma la jàmm ni ko man lii maay ko dafa am nit koo xamante ne daf maa ñaanoon ci jëmm yàlla ma jox ko dara te oma lenn la ma ko jox moo tax ma jox ko sama bopp mu jaay ma ba mu ma dugal ci ma nekk yow ñaanaat nga ma jëmm yàlla ma wax la maay jàpp ndax am naa xam-xam te ni képp koo xamante ne ñaan ko dara ngir jëmm yàlla mu lànk loolee ñu ko ñaan ngir jëmm yàlla yow man xiyaam dana taxaw ci kanamu borom ab der du nekk ci kaw kaw kaw kaw kaw kanamu boobu aw yàpp yi maanaam yàq ci lay def daal kanam borom ngir ker na ko ngir lim def ñaaw ji daal di jooy daal di ñëw jox ñaari loxo ci jóotal ko ñu fóon loxo ni ko joxe la sama lay jox waaye ndax ci yi ma la teg ñàkk a xam a taxoon ma la waaye nag sama alal bi ak sama waa kër ak ci yi la nekk rek man la neexee nga jël lépp bu la neexee nu la neexee mën ko ànd woon bu fekkee it bëgg nga ma bàyyi nga def sa yoon di ko nga a jàmm mu ne waa dafa daal di jëb dugg ci diine ci diine yàlla daal di yëkkati ñeenti téeméeri jox ko daal koy bàyyi mu def yàlla wax yéefar ñu ko musal naa la ci njàmm yéefar bi def naa ko mu jaare ci sa ñaari na ko ba jëpp dërëm boo joxe woon buñ la mu def ko am diin ndax ni ko loolu lépp nag jubluwuma ci dara yàlla wax yéefar tax ni loolu lépp nag jubluwuma ci dara jublu nga xam ni kenn du tar ci jëfante loolu yi mooy ñu jóg ci sa ba tey ba tey ñu nettali ñu yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ni ba ñu mara ba marañaane jëm ci ñu dama yóbbu ci asmaaw bi nga xamante ne maa ngi ci kaw fas li ñuy wax alburaaq ànd ak jibril dafa am xet gu fa jaar gu neex gu leen xeeñ dañuy dox ba mu jàgg am xet gu romb gu neex mu ni jibril xet gu neex gi ana la mu doon nee na Jibril ni ko dafa am ab buur bu nekkoon ca jamono yi jëkk yi amoon doxaliin wu rafet ak i nitam buur boobee benn doom bu góor la amoon amul benn doom bu dul moom kenn rek la am ci doom muy jenn doom bu góor jooju nettalikat yi wax nañ baayam ab buur la woon bu mag buur bi nag jël doomam jooju jox ko jenn ak yar mu di ko ko yar jamono bu ne xale bi di dem si jàngalekat boobee ak a ji ak a del waaye fa jànge ji ak diggante kër baayam it am na ab béréb boo xamante ni ab jaamukat yàlla ngi woon di yàlla xale bi saa bu rombee jaamukat yàlla boobu loolu daal bokk na ci di ko yéen toog fa di waxtaan ak moom ba bu fa jaaree ba tarde ba àggul ci jàngalekat ba nag jàngalekat ba moom day jàpp ni rek dafa nekk kër baayam bàyyi nit jàpp ni ma nga fa jàngalekat ba ba mu màgg fekk saa bu jógee kër baayam am na jàmm ko yàlla taxaw ci wetam toog fa di moom ngir moom mu yéem ko lool daal mu di ko wàcc wàllu yàlla ba xale bi màgg ci noonu mu jël ci jaamukat yàlla ba jikko ya jaamukat yàlla ba yoroon yëpp jël jaamu yàlla gam doon jaamu yàlla waaye ni ci nguur ga wax baayam ni ko yow kat sa doom ji amoo ku moom dama war a doon sa nguur gi léegi nag mag la bu fekkoon ni wutal nga ko soxna bi ndax mu mën a am ay doom loolu lu am solo lay doon bàyyi di xale bi daal di koy gaaral loolu yi wàllu soxna ne ko léegi sa xalaat doom bi gànt ne ko day sama xalaat bi jëmagul ci wet googu waaye di topp ko ci loolu topp ko ci sonal ko sonal ko ba mu toll rek di ko wax ci soxna ba xale bi d'accord mu wut ab jànq ci doon buur bi buur yi mu dëkkaale bi buur yeneen ak ñoom ñoom jëndal ay frontières mu wut benn xale bu jigéen boo xam ni kenn ci doomi góor yooyu ñu togg ko ay ko doomi ci jigéen bi ànd ak xale bi ab diir moom xudar la ji doon nekk ay mbiram ba tey maanaam xale boobu mooy xudar ma mooy mooy koo bi nga xam ko juróon buur na jigéen bi bi mu ànd ak moom ab xale bi daal ni ko nag naa la wax sama bu fekkee ni sama mbir ma lay nekk dégg nga ko te topp ko yàlla dana la musal ci ayu àddina musal la ci mbugalum alaat waaye sama mboot mi de boo ko siiwalee yàlla dana la ci àddina ak ci alaat jigéen bi ne yi lan la mu ne ko na xam ne man ñi di wax la ak jii sama bàyyi di dund nekkuma ci jigéen it bokkul ci sama ittee maanaam doonuma koo xam ne dinaa jaxasoo jigéen loolu sama ittee bu fekkee mën ngaa ànd ak man ci nii toog ci te duñ fekk dara ci li góor di fekk jigéen lu nga nekk ci rek bu fekkee doo ko man ma fàtte la nga dem daway tànn waaye da ànd ak jigéen ci mu nekk te li góor gi ñu tëwoon gisoo ma ko bu fekkee mën ngaa dund ci baax na boo ko mën ma fase la nga def waaye lii rek mooy sama mbir jigéen ji ko mën na maa continuer yow sëy bi ànd yow ci ñoom ñu ko ñu am ab biir jigéen ji amul doom nu wax bàyyi sa te muy góor gi ne ko damaa jàpp ne kii nga dencal sa doom bi dafay jigéen bi am doom ba jigéen jigéen ji du am doom la léegi dangaa war a suñu war a léegi bàyyi bi daal di woo xale bi laajte ni ko lu doom bu ngeen tàmbalee fii léegi xale bi ni ko loolu day nekkul ci sama doom bi nekkul ci sama loxo ci woo soxna sax laaj soxna si tonte tontoo ko noonu ñu ko ko dar tontoo woon ne ko doom bi nekkul ci sama loxo ci loxol yàlla la nekk bàyyi bi continuer ñoom ci noonu ab daal di woo doom bi ni ko damaa bëgg nga fase soxna si ñu wax dama wutal la keneen ndax ku dul am doom kat taxutoon ko waaye bi waxee loolu yi ku dar sama loxo ci loxol yàlla la nekk boo jigéen ja laaj ko ne ko lu leen tee am doom bu ngeen dalee sëy ba léegi jigéen ja tontu ko même tontu bi xudar tontu ne ko loolu yi bee nekkul sama loxo ci loxol yàlla la nekk mu ñu am ab diir mu daal di woo ko daal ne ko dama laa bëgg a takkal seneen soxna soo xamante ni dana am doom ta kii dama laa bëgg a takkal seneen soxna soo xam ne dana am doom ta nga wàcc kii waaye xudar loolu neexu ko dara bàyyam sonal ko ci ba takkale ko ak jigéen ju jëkk ja indi jeneen jigéen may ko joo xamante ne ab njagamaar la bu ci war am doom jigéen jooju bi mu ñëwee Xudar jaaraat ak moom fa mu jaaroon ak ku jëkk xamal ko ni ko dinaa la wañ wan secret boo xam ne day boo ci àndeek man danga mucc ci àdduna mucc ci alaxira bu fekkee nanguwoo ci ànd ak man siiwal sama sama mbooti sama biir nag na nga xam ni mbugalum àdduna dana la dal ak mbugalum alaxira mu ni ko loolu mooy lan mu ni ko na nga xam ni ab jullit laa dina ji sama bàyyi di dund nekkuma ci tey it ittewoowuma jigéen bu fekkee ni mën ngaa ànd ak man ci nii nekk ci diine jii nekk nekk man ci noonu nii fa lillahi alhamdu boo ko mënul nga dal di delluwaat seen kër jigéen ji xamal ko ni ko loolu danaa ko mën danaa mën a toog ànd ak yow ci loolu jigéen ja ànd ak moom ci loolu ñu am ab diir baayam jaaxlewaat ci ndax doom mën a guta am ba léegi woo xudar ni ko lu tax doom amagul ba léegi xudar ni ko loolu nekkul ci sama loxo ci loxol yàlla la nekk mu woo jigéen ji ni ko waaw lu leen tee am doom ba léegi jigéen ji ni ko loolu doom de nekkul ci loxo ci loxol yàlla la nekk mun ko ah, li ma jaaxal mooy yow fa nga jëkkoon di sëy am nga fa ay doom lu tax nag nga nekk sama doom te mënoo am doom nag bu mu ko sonalee jigéen ji ni ko nag li ma lay xamal daal mooy ba ma dalee see sa doom ji ba fii nu toll nii mosuñu sequb dal maangu mosuñu bokkub dal mosuñu seq dara dara dara ni ko jigéen jafe jëkkoon jaar nii la àndewoon ak moom mosuñu seq moom dara dara dara buur bi daal di woolu ji jigéen jëkk ja laaj ko mu tontu ko mu tontu ko loolu yi ko jigéen ji tontu ni ko wax dëgg diirub laa fay nekk de mosuñu seq dara dama la ko leerlu doon rek buur bi di woo doomam jooju muy xudar daal ko ci yedd bi mu ko yeddee nag am ñuggu ñuggu ju dox digganteem ak baayam ba mu am ci tiitaangee xol loolu li ma waral Xudar daal di gàddaay rek topp njëyam kenn xamul Xudar penku la aw wala sowu la aw wala kaw la jëm wala suuf baayam nag amug rëcc lool ci lim def ndax doomam jooju naa xaw rek dem mu yónni téeméeri nit fukk yu ne mu wax leen ni na ngeen jaar barab sàngam yenn fukk bu mu bokk ñu bokk ak seen morom fañ jaar ñu daal di continuer dem di wari xula am ci fukk yoo xamante ni dugg nañ ci biir géej gi ba dem ci benn île ci biir géej gi fekk fa xulaf xulal waxtaan ñoom ñu leen dinaa leen wax mbir waaye na ngeen ma ko nëbbal bu ngeen nëbbee lii ma leen di bëgg a wax day yàlla dana leen musal ci ayu àdduna musal leen ci mbugalum alaaxira bu ngeen ko bañee nag feeñal sama secret bii de yàlla dana leen mbugal ci àdduna mbugal leen ci àlla ñu ni ko lu la soob rek mu ni leen ndax sama baay yable na yable yabal na ñeneen ñu may wut ñu may wari ñu ne ko waaw yabal na ñeneen mbooloo de mu ni leen li ma bëgg mooy ngeen nëbbal ma sama mbir bu ngeen demee ngeen xibaar sama baay comme seen morom yay ma gisut lañ wax rek ngeen wax ko ngeen xam ne ne xamuleen ci man dara ndax li ma xam mooy bu ngeen ma jëloon yóbbu ma ci sama baay fi toll nii dana ma rey te bu ma reyee sama deret yéen ñii yéen lañ koy topp kon nag bu ngeen yeboo bàyyi ma te dem ba mu waxee loolu ñu daal koy bàyyi daal di delluwaat bañ delluwaatee juróom-ñeent ñëpp maase ci ni ko kat ñun gis nañ xudar waaye lii lañ wax ak lii ak lay aji fukkeel ja ñu laaj ko mu ni man de xawma ci xudar dara wax dëgg benn baat bi xamu ko ci juróom-ñeent ñëpp maas na ko da ngay wax rek xudal ñun ñëpp gis na nañ ko te nee nangam ak nangam moom itam mu lànk ñu leen loolu dañuy def waaye man xamuñ dara juróom-ñeent ñooñu daal di wax bàyyi bi daal di wax buur bi ne ko boo nu yabalee la ko andil ñun am nañ ci lu leer mun leen dellu leen indil ko fekk ginnaaw gi xudar tiit ni as ñëwaat di ko seet ci foofu yi tax mu daw dem làqatu ñu feneen dem làqatu ji beneen barab ñooñu bañ ñëwee di ko seet gisuñ kenn fekkuñ fa xudar ñu daal di delluwaat bañ demee ni bàyyi ba gisuñ xudar mun leen ku leen dàq seen foofu ma ko yéen a taxaw fii ni gis nañ ko dikkaat fii ni gisuñ ko daal leen di jàpp rey leen ñoom ñëpp léegi ginnaaw bi bàyyi ba woo jeeg boobu bi mu ko mujjoon a may njege ñaar njege maat bi mu mujjoon a may xudar daal ni ko yow daal li ma dal lépp yaa ma ko teg ndax doom ji lii nga ma ci wax ba ma ko ci waxutoon du naa ngi faw nii daal koy mere daat yi rey jigéen jëm dëkkoon di seyal dégg xisab ñu ne ko rey nañ jigéen jii nga xamante ne moo wax ne ko da daw jaxas ak man jigéen jëm dëkkoon di seyal daal naa ngi faaw moom su daan ji suñu atuñu naa rey naa ñëw dem sama yoon may aji fukkeel ji nga xam ne juróom-ñeent ñi mu àndaloon di wër ñëpp rey nañ leen ba mu des ci moom itam xalaat mi man képp su ma toogee damaa danum xel waaye wóorut ànd ak fukk ñu rey juróom ñu rey juróom-ñeent ñi su ma naa ngi faaw moom itam dañ faa jaar bi mu dawee dem ci ab dëkk fekk fa jabali jabari xular ju jëkk jaa jëkk ka dawoon ñu daje fa ñoom ñaar ci dëkk boobe fekk mi ko fekk muy taxan mat waaye xamutoon ni moom benn bis mu dégg jigéen ji di wax ne bismillahi góor gi dawoon dawe woon ci dëkk bi dégg bismillahi jooju daal ko ah waaw yow yoway kan jigéen ji nett li ko xibaar bi wax ko fi mu jaar góor gi daal ni ko man mii nag maay aji fukkeel ja nga xam ne ñu itam dañoo yónne woon maak fukki nit ñun juróom ñun fukki nit juróom-ñeent ñëpp ñu ray leen ba mu des man man mii loolee ma tax a daw ñu daal di gindi konte ki xam ne man maay jabari xudar ju jëkk ja waaye damaa gis jabari ñaareel ji ñu ray ko ba gisuma lu ma xam moom ma tax a daw kii ne ko man mii de maag sama juróom-ñeenti morom la ñebandoloon ñuy wër xular bañ ñëwee juróom-ñeenti ña dañ leen a rey gis lañ ngir nam deme man ñu bàyyi ma ba wóolootuma dëkk ba moo ma tax a daw bañ waxtaanee ba di konti nag góor gi sàkku ci moom ni ko teema laa takk mu ne ko waaw jigéen ji ànd ak moom ci takk googu bam ko takkee ñu daldi dem ca biti dëkk ba wut fa ak kër saa bu ñu xëyee kenn fu ne liggéey ñu ñëw di jàppalante ci seen biir ba am nañ fa ñetti doom yu góor góor gi daal di wax jigéen ji ne ko bu yàlla dogalee ma dee na nga ma denc fii na nga ma suul fii ci néeg bii ne ko naka noonu it xale yii ci sama waa kër képp ku ci dee nañ ko suul ci néeg bi ndax bëgguma suñuy bàmmeel ak bàmmeel yi yéefar yële di jaxasoo buñ demee ba ka ci mujj ci nun ka ci mujj na dénkaane ne su dee nañ màbbu néeg bi ci kawam bu fee ñëpp mën a fees bokkandoo ci biir néeg bi mu doon seen bàmmeel ñu dox ba jëmmi jamono góor gi faatu jigéen ji denc ko ci néeg boobu sol ko fi waaye Firawna ma nekkoon ci seen jamono te mooy buur dëkk boobu ñu nekk dégg ni ñoom day eh, ñu gëm yàlla lañ te dañuy wéetal yàlla ñu dem sax jëli soxna sax indil ko Firawna moom ni ko mi ngi nii kii ab jaamukatu yàlla mook jëkkëram ak ñetti doom firawna moomu digal ko ni ko bàyyil diine ji nga nekk te ñëw ci diine ji ñu nekk jigéen ji bañ ba jigéen ji bañee firawna digle ñu fab cin cinul përëm duy ko ba mu fees ndox ñu baxal ko ba mu gu tar mu digle ñu indi jigéen ji ak i bañ leen indee mu digal jigéen ñi ni ko da ngay dellu bàyyi diine ji nga nekk wala ma sànni ma dugal la ci biir cin bi di bax yaag say doom jigéen ji bañ loolu yi mu wax firawna digle ñu jël doom ju mag ja daal koy dugal ci biir cin li mu daal di bax ba ñor ñu jël doomi ñaareel ñu ko bàyyil mbaa ñu def ci doomu ñaareel ji mu lànk continuer ci dina jëm nekkoon ñu fab doomu ñaareel ji dugal ko ci cin li mu bax ba ñor fekk am na benn doom bu tuuti bu mu yoroon di ko nàmpal ñu jël doom jooju bëgg koo fab dugal ko ci cin li mu xëccoog ñoom coow ak ñoom ci doom jooy ndax yërmande ji mu am ci moom doom ja daal ne ko sama yaay ñal ndax nun ñëpp àjjana la ñuy daje bañ demee ba bëgg dugal mu daal di bàyyi bañ demee ba bëgg a dugal doom ji ci cindi jigéen ji ni leen am naa ci yéen benn aajo bu ndaw ñu ne ko lan la mu ni man ci sama jëmmi bopp bu ngeen ma dugalee ci cin li na ngeen jël cin li ak lii ci daje ci sunuy yàq lépp suul ko ci biir néeg bi te màbbu néeg bi ci sunu kaw loolu rek laa leen di ñaan ñu ni ko loolu moom man nañ la ko defal daat koy defal lool yi maanaam bañ leen rayee ñoom ñëpp bañ jeex ñu dugal leen ci cin la gas ba mu xooj ci seen biir néeg boobee ñu suul leen màbbu néeg ba ci seen kaw yonte bi sallallahu alayhi nag bi muy rañaan xet googu yi ko doon xeeñ ba mu nee jibril xet gi di ma xeeñ lan la jibril nett li ko xissa bii ni ko lii di xeeñ seenu xet mooy xeeñ xet gu gi mel ni xetug Euh, kon loolu mooy fi xudar jaar ci ak ndawam digganteem ak baayam ak fi jaar digganteem ak Muusa xudar moom it jamononte ne ak zul xarnayni te mooy al iskandar al awwal jële nañ ci ali ibnu abi talib jële nañ ci ali ibnu abi talib karamallahu mu wax ni Zulxarnayni buur la woon boo xam ni dafa moomoon li dale ci penku ba ca sow waaye ci biir nguur googu it amoon na ab xarit boo xam ni ci malaayika yi la bokk xarit boobu mi ngi tuddoon Rawfa Iyil Rawfa Iyil moomu day ñëwal Zulxarnayni di ko ziyaara si lu bari benn bis ñu toog ñoom ñaar moom ni ak xaritu malaayikaam boobu yi ñuy waxtaan Zulxarnin ni ko yaa Rawfaa'il waaw yow Rawfaa'il dama bëgg nga wax waxtaanal nett li ma ni ngeen di jaamoo yàlla ca kaw ca asamaaw nee na malaaka mi jooy ni ko yow Zulxarnin seen jaamu yàlla gii de sore naag sunuy jaamu yàlla lool nun malaayka yi ndax ci kaw asamaaw de am na fi ay malaayka yoo xamante ne am na ci ñoo xam dañuy taxaw abadan duñ toog bu mukk am ci ñoo xamante ne dañuy sujjóot duñu yëkkati seeni bopp bu mukk am ci ñoo xam dañuy rukkoo duñu siggi ba mukk ñooñu lépp di wax ni subhaana al quddus subhaana rabb subhaana al quddusi rabbil malaikati war ruux rabbana ma habadnaaka dañuy tudd sellu yàlla di ko wax ni ko day xam nañ ni jaamunu la dëgg dëgg sag jaam jaamu yàlla ak malaayka yooyu day sore na lool lool ak jàmm yàlla ñii ci kaw suuf bi ko waxee lool yi sul xar ne ni daal di jooy jooy yu tar daal ni ko man day bëggoon na maa gudd fan lool ndax ma mën a jaamu sama borom dëgg-dëgg ak jaamu Rafaayil ni ko ndax dangaa bëgg a gudd fan yow sul xar ne nii mu ni ko waaw bëgg na maa gudd fan de Rafaayil ni ko yàlla de am na benn bët ci kaw suuf bu ñu tuddee bëtub dund aynul xayaati lañ koy tudde te bët bët boobu yi de yàlla dogal na ku ci naan benn gox képp doo deeti ba faw doo dee wala boog bu fekkee yaa dem ba bëgg a diral doo dee ndare bu yaa dem ba bëggal ko sa bopp boo ko bëggalee sa bopp ñaan ko yàlla nag boobaan mu doot laa mën a rey waaye bu loolu moom boo ci naan ne da ngay dund abadan sul xar ne ni ni ko ndax yéen malaayka yi xam ngeen bët boobu yi fan la nekk ci kaw suuf malaaka mi dee ni ko déedéet daanañu waxtaane daal ci kaw asamaan ni yàlla am na ak lëndam gu nekk ci kaw suuf goo xam ne doomu aadama mosu faa dugg jinne it mosu faa dugg bët ndox moomu ñuy wax aynul xayaati nag ci biir lëndam googu yi la nekk zul xar ne daal di dajale borom xam-xam yi nekkoon ci kaw suuf ñëpp mboolem ñu mu yëlif ci nguur gi mu dajale la ña ci ay boroom xam-xam ak ñi ci jàng téere yu jëkk yaag ñi ci amoon jeexeeti nubbu yonent yi fi jaaroon ak yépp mu laaj leen dajale leen ni leen dama bëgg ngeen xibaar ma ndax kenn ci yéen jàng ngeen li ngeen jàng ci téere ak li ngeen mokkal ci ay ahadis ak li ngeen laaj tooga ki mag di leen laaj ci boroom xam-xam yi ndax mas ngeen cee dégg benn bët bu nekk ci kaw suuf boo xam ne ku ca naan dootoo dee ba mukk borom xam-xam yu yépp ni ko déedéet loolu day ñun mosuñu ko dégg benn boroom xam-xam ci ñoom ni ko ah kay man de jàng naa ci ndénkaani aadama ma fekk ca mu wax ca biir ndénkaan yooyu ni yàlla bind na ci kaw suuf ak lëndëm goo xam ne nit mosu faa dugg jënne mosu faa dugg def na fa bëtub sax ci kaw suuf def na fa bëtub ndox boo xamante ne ku ca naan da nga fi sax ba faw nee na xar xarne ni ni ko ci ban ci wasiye yi nga fekk loolu yi mu ni ko wax na ni wa wasi mu ni ko fan la wa la wasiye ba wax ni fa la nekk ci kaw suuf mu ni ko wax na ni mi ngi nekk ci sowukaayu jant bi bi mu ko waxee loolu yi sul xaar ni dajale boroom xam-xam yépp dajale mbooleem encadrement yi gouvernement bi ak niti nguur gi ñépp wax leen ni leen li ma soxla mooy ñu dem fa jant bay soox ci sowu jant bi laa bëgg ñu dem fa mu dajale mbooloo mépp ànd ak ñoom ñu dox fukki at ak ñaar dox nañ ko ba jot catul lëndëm googee bañ demee ba àgg ci lëndëm ga gis ni lëndëm gi lëndëmuk saxar la dafa dafa dafa mel ni lëndëmuk saxar nga xam day weex nii waaye boo ci duggee kenn du gis sama niruwut niruwut lëndëmuk guddi foofee nag mu dajale fa mbooleem soldaar yëpp àndaloon dajale borom xam-xam yëpp ni leen nag damaa bëgg a dugg ci biir lëndam gi borom xam-xam yi ni ko yow buur bu tedd bi mbooleem buur yi fi jaaroon jiitu la de ak yonante yi fi jaaroon kenn ci ko mas a dugg ci biir suuf si nga bëgg dugg amul kon nag bu ci dugg ñun de ragal nañ lool ni boo ci duggee de mën nga cee dajeek mbir moo xamante ne du la neex te loolu yi mën naa andi ak yàqu ci kaw suuf ak ñi ci kaw suuf sul xar dugg gi lu mënta ñàkk la fokk rek danaa dugg ci biir landam yi gëstu fi dama fiy gëstu ñoom boroom xam-xam yooyu ñu wax buur bi ni ko li nu jaaxal de mooy mën nañoo ànd ak yow ci lépp loo bëgg waaye nag buñ duggee ak yow ci biir lëndëm gii yàlla dogal leen doon bëgg amuñ ko mbaa merum yàlla du nu ci fekk zul xarne ni leen dafa am lu may sàkku te mënumaa ñàkk dugg ci biir lëndam gi te li may ñaanit mooy merum yàlla bañ ñu cee fekk mënta ñàkk rek danaa dugg lëndam borom xam-xam yi ne ko bismillah loolu digal danañ ko def zul xarne ni leen ana daab bay yan ñoo ci dàq gis ci guddi ñu ne ko fas fas moom ci dabba yi dàq dox guddi ci lañ bokk ci la bokk mun leen yan fas ñu dàq dox ñu dàq gis guddi ñu ne ko fas yu jigéen yi mun leen fas yu jigéen yi ana yu ci dàqa gis guddi ñu ne ko mooy fas yu jigéen yi tollu ci ak njànq maanaam nga xamante ni euh, tëbooguñ sul xar ne ni yónnee ñu dajaleel ko juróom benn junni ci ay fas yu jigéen yoo xamante ne ay jànq fas lañ mu daal di tànn ñi ci dàq muñ ci waa ngor gi ñi soldaar yi ak borom xam mu dàq ci ñi ci ëpp xel mu tànn ci ñi ci dàq muñ ëpp ci xel mu tànn ci junni gaay junni nit ñooñu juróom benn junni nit mu tànn leen ci juróom benn junni nit yooyu kenn ku ci ne mu jox la aw fas daal fas benn drapo jox ko xudar yor drapeau bi daal di nekk ci njiitul njiitul quartier gi maanaam njiitu ñu jiitu ñu fas yéenee dugg nag lëndam gi ñu ngi jiite ñaari junni ñu ci topp seen ginnaaw xudar ànd ak ñaari junni tul xar ne ni ànd ak yeneen ñeenti junni muy juróom benn junni nit ci dugg la ndam gi nag la sul xar ne ni wax ña desoon ca soldaar ya ni leen fii bu leen fi jóg na ngeen fi taxaw na ngeen fi taxaw lu mat fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar bu ngeen ko fi taxawee nag bu yàlla dogalee nu dellu si fa lillahi alhamdu bu ñu dellu si wut na ngeen dellu fa ngeen jóge woon te xam ne dee xudar daal di wax sul xar ni ko yow buur bi ñun de ñu ngi nii dugg la ndam gi te xamuñ nun nun fi yàgge ak nun fi doxe te kenn du ci gis sa morom ci biir lëndam gi ana nu def ci lëndam gi bu yàlla dogalee ak réeroo am suñu diggante ñu réeroo ba kenn xamul fu sa morom jaar loolu xaar ne ni jox ko benn perleur bu xonq ni ko saa boo demee yow àndal ak sa ñaari junni ngeen dox jëm benn boor maa nag ñeenti junni ñu dox jëm benn boor saa bu ngeen demee benn réeroo ba xamatu leen ci ñun dara boo tuxuraa rek nun mbooloo mii danañ ànd jëm si ci fànn googu jëm si cër gi ngeen danañ mën a gisee loolu laa ci gis mooy solution xudar dox ci kanamu sul xarneen ànd ñaari junni nit xudar bi muy dox ci biir lëndëm gi ñu mel ni dañ ko wax yu def tàbbal cim xelam ni ko xur sàngam di boo jëmee boor sàngam di foofee la aynul xayaat bi ngeen di seet nekk xudar dem ba ca pindub xurwa mu am fa ab diir dox dugg ci biir xool gis bët ba muy aynul xayaati bi doon seet gis na ni ndox mu weex tàll la moo gën a weex am soow moo gën a neex lem xudar naan ca sangu ca jàpp ca daldi solaat ay yéreem ba mu ay ay dal di dellu ci ay àndalem daal war wax ñam àndaloon ni leen dox leen bismillah ndax Zul Xarnayni jaar na fi ba jàll te dafa mooy xur wi kon nan topp nii nañ romb nii jàll ndax jàpp naa ne jiitu ji nanu nan ko dabi daal di jaar ci biir lëndëm gi lu mat ñeent fukki fan génn ci ak leer goo xam ne dafa mel ni leerug melut ni leerug jant melut ni leeruk weer suuf sa it soof su xonq coro la bu doon ban ban boo xamante ne day rembu bi nga xam ne boo ci dëgg muy xëj xëj yi bu nekkee ci biir suuf suuf soof yi gis fa benn njënde benn étage bu mag boo xam ne mi ngi guddee sax ci farsax farsax yaatu farsax am ab bunt bañ demee ñu fekk fa sul xar ne ni sul xar ne ni taxawloo mbooloo mépp dugg moom képp ba mu duggee moom képp ci biir taax moomee gis fa genn weñ goo xam ni mu ngi jàpp ci catul miir bi jàpp ci catul miir bële mu gis ko ci peggu taax moom yi gis fa it ginaar bi mu gis fa mel ni picc moo xamante ni picc mu ñuul la mu mel ni baaxañ moo xamante ni dañoo nos dañ ko nos ci weñ gi mu nekk ñu aj ko ci diggante asamaan ak suuf moom picc mi ba noppi nag nos bi moom weñ gee ko nos weñ ko gii sul xam ne gisam bi picc mi dégg yëngatu tànki sul xarne ni wax ne ko ko mu ne ko mën a xarne ni picc mi ne ko yow sul xarne ni ana foo jaar ba mën a agsi fii ci man ñi ci sama gannaaw ñëpp noo def ba ba baariwuñ la baat ne ko ginnaaw agsi nga dama bëgg nga waxtaanal ma sul xarne ni ko waaw laajal loo bëgg mu ne ko ndax nit ñaa ngay boole ay ciment ak suuf di tabax rek ci kaw suuf mu ne ko waaw picc ma daal di fonki ba xaw a yóbbu sul sulusub fer weñ ga ginnaaw mu ne ko yow sul xarne mu kaw mu ne ko ndax ndax sere ay neen ni ngi bari ci kaw suuf ba léegi mu ne ko waaw mu gën a funki ba feesal weñ ga ba nga xamante ne weñ ga la mu jëloon lépp ci miir ba ci distance picc mi jël na ko léegi ba xawa a fatt diggante ñaari miir yi sax nga xamante ni xaw naa fees néeg bi léegi sul xarne ne bi mu gisee loolu nag mu tiit tiitaange ju taratar picc mi ne ko bul ragal continuer waxtaanal ma mu ne ko picc sul xarne ko laajal mu ne ko ndax nit ñi bàyyi nañoo seere ni laa ilaha illallah euh, suñu xaar ne ni ko déedéet picc mi dal di tàppuwaat ba toll ca sulusu weñ ganam tolloon daal di laaj suñu ne ni ko ndax nit ñi bàyyi nañoo sangu janaaba suñu xaar ne ni ko déedéet picc mi daal di giifaat ba dellu ca nam meloon bu njëkk daal wax suñu xaar ne ni ko nag jaaral ci escalier yi yéeg ko escalier escalier ba jàll ca kaw étage ba suñu xaar ne ni soobu ko waaye bi muy soobu escalier yi it ngi tiit lool ndax xamut lu muy dajal ci yoon bi xamut lu muy gis waaye daal dana yéeg rek ngir ndigal la te loolu la gis mu dem ba àgg ca digg escalier ya gis fa lu mel ni ab téeg luñ terrasse maanaam mu gis fa lu mel ni aw ab photo photo benn waay boo xamante ne waxambaane la ku taxaw sol yére yu weex weex tàll yëkkati kanamam jëme ko ci asamaan fab ñaari loxoom teg ko ci gémmiñam mel ni ku amul jaaxle bi mu déggee coowul tul xam ne ni yëngutu tul xam ne ni mu ne kooku kan la Zulxarnayn ni ko mën a Zulxarnayn mu ni ko Zulxarnayn na nga xam ni bis penc lu jege jege jege la li ma fi tax taxaw nii mooy di néggandiku sama borom ndigalul sama borom ngir mu mën maa digal ma wol boftu bi rek moo ma fi tax taxaw nii moom lay xaar fi waaye lu jege la man nii maay Israfil mi ñu dénk boftu bi gannaaw bi mu jël moom borom boftu boobu aw doj ci kanamam la ko jëlee. ni ko zul xarneen tëyal doj wi bu doj bi raggee danga nga ragg bu xiifee it nga xiif zul xarneen ni jël doj bi daal di wàcc ñëwaat ba ci ay àndandoom net li leen janaaw lam fa gis ak li ko janaaw la wax ak li nga xamante ne jox na ko ko muy doj woowu ak eh, maanaam janaaw la lam ko wax ak lim ko fi mu ko jaarloo ak lam fa gis ak eh, ni mu gisee sul xarneen ni ak lañ wax xarte ak doj bi mu ko jox ak jaaxle gi mu ci am daal dajale borom xam-xam yépp nag nii la nekk mbirum doj bi laa bëgg ngeen xibaar ma ko leeral ma ko dëgg-dëgg lu la lu la lu lu mu la wax bi mu la joxee doj wi moom Israfil suñu xam ne leen daf ma wax ni ma bu doj wi reggee nga regg bu xiifee nga xiif boroom xam-xam yi fab doj woowu teg ko ci ab balance fab yeneen doj yu toll ni doj wax teg ko ci ab balance di teg di teg di teg ba mu mat junniy doj doj wi li ko malaaka mi joxoon wat doj yooyee ñu am ci jaaxle lool ba seen xam-xam jaax ci ñoom ñëpp xudar boobu mi ngi taxaw di leen xool ba ci xam-xam yëpp jeexee ñu ne ko xudar yow ana loo xam ci doj wi mu